auzu bilay mina setan rejim Bismillahirrahmanirrahim. rahmaani rahim bokki Thiès bokki Thiès Nord bokki Thiès kaay yëpp maa ngi nuyu képp ku teew ci ndaje mi sa tur ak sa sant di leen gërëm di leen sant ndaxte woote ñu wis la dafa jafe li waral ndaje mi nag tey mooy quinzaine de la femme ku nekk xam ne Sénégal depuis 2010 jigéen ñi yënguwuñu ci quinzaine de la femme ñu toog ba ren euh, president Macky Sall ni dafay indiwaat quinzaine de la femme ñu woote CRD à la gouvernance de Thiès ba ñu fa jógee ñu wootee ñu ko développement communautaire de ba ñu fa dajee nag jigéeni commune yépp ak département bi ku nekk dafa jël sa bis man nag Thiès Nord man Fatou Badiane laa tudd maay secrétaire général comité consultatif départemental de Thiès nekkaat secrétaire général comité consultatif de la zone nord de Thiès. ba ñu fa dajee nag ku nekk xam ne ni comité consultatif yi bañ ko tegee ba léegi forme wu ñu wutiyee wu ñu joxuñu ñu dara. dañoo toog rek di xaar euh, état jigéen ñi li ñu man ñu ngi koy def di ko yëngu ci seen i koñ di def seen i avec di def seen développement di def seen i kurti yu ndaw benn loxo kenn fekkuñu ci te ku nekk xam na ni coordination au niveau communal départemental euh, ak communal dafa metti moo tax nag ba ñu dajee réunion ñu ni comité consultatif yi ñooy porte waat li nga xam ne mooy euh, quinze de la femme. Fat Badiane mu jóg taxaw ndaxte suñu commune maire Anta Dieye ko jiite ka ca topp mooy ndey soxna jigéen parce que ñun comité consultatif yi décret moo ko fi tegoon wante nag mënumaa toog di seetaan commune yépp ñëw ñii nga xam ne jiite nañu comité yu consultatif nord bi ñëwuñu man il fallait que ma jël samay disposition woote ci laa convoqué groupement yépp maa ngi leen groupement nord yépp ma woote ko ca développement communautaire bañ fa toogee ñu toog ñu élargir def ay commission def commission achat tissu def ko yokkaat élargir parce que ni ñu autorité yi wax mooy comité consultatif moo koy porté mais nañ ko yaatal ñu yaatal commission yi nag woo jigéen ñu baax ñii fi toog ñëpp ay présidente groupement lañu genn wàllu présidente yi nga xam ne adhéré nañu ci comité consultatif yëpp ñëwaguñu fi sax teewaguñu fi ñu fas yéenee célébré ñun Thiès Nord suñu euh, le 17 le 17 mais ak 15 heures ca dernier euh, dernier bureau ci léegi nag thème bi nga xam ne moom la ñu joxe mooy. le PSE un levier essentiel pour l'autonomisation de la femme Légui kooku kuy jigen ku ne xam luy autonomisation de la femme bon nga ci yëngu te soné PSE bi PSE limu waral moy yoon wo xamni wi ci la nit ñi jaar ba yok rek PSE mom yokute la moy plan Sénégal émergent bi nga xamni mom lañu la te ñun jigen ñi li ñuy wote suba ngoon yep moy émerger li ñuy wote suba ngoon moy mooy lu ñu jëmale ca kanam motax nak ñun jigéenu zone nord ñu fas dajale 17

acte 3 de la décentralisation xam nañu commune bu nekk léegi da nga dem sa autonomie moo ñun Thiès Nord it bëggu ñoo des resté en bëggu ñoo toog en rade ñu fas yéenee toog man mi nga xam ne maay secrétaire général bi nag man maa jiite commission bi ndaxte maa maa woote maa ca jóg di ca sonn boobu ba léegi bien que comité consultatif bi Anta Dieye mooy présidente bi Ndeye Soxna Njigéen mooy vice présidente bi ñu fas yéene àndandoo ñun suñu jigéen ñi yépp la ko jare kër Modou Ndiaye ba école polytechnique fas yéene célébrer le 17 mai quinzaine de la femme ñu fas yéene ko def dañee brotier célébration boobu ñuy def nag ba ñu ba ñu jógee réunion dañoo dem rendre compte suñu sous-préfet mu taxaw ci taxawaay bu rafet rafetlu ko lool daal ni li ngeen def moom def ngeen ko ak courage ndax ëppoon naa ba ñu jël parce que quinzaine de la femme yëfu état la du yëfu ma Samba du yëfu ma Demba ñun jigéen ñi yéen jigéen ñi comme jël ngeen courage jël seen journée fas yéene naa ci ànd ak yéen ndax man lépp luy jëmale jigéen kanam maa nga ca ndaxte loolu la ñu suñu président sant lool nag nga xam ne moom lañ ko sant muy autorité bi dox na ci jox nañu otoom wër nañu 19 délégués de quartier yi nga xam ne mooy quartier yu fonctionnel ci euh, commune Thiès Nord bi daje nañu ak seen i jigéen commune fu ñu fa dem woo nañu présidente groupement ba fa nekk woo nañu de woo nañu ñëpp ñi nga xam ne ñoo yëngu ci développement ñëw toog wax ak ñun ñu xamal leen ñun li ñu tax a jóg xam ne ñun ay femmes développement pur et lañu soxna bu Ndiéguène dëkk kër maam alaaji nekk responsable politique APR ñëw na ci ñun ñu jël ko suñu marraine bu journée mooy soxna Mantoulaye Dieng parce que kuy wax développement ci zone nord bii defe naa ni bu fekkee ni développement rek moo la tax a jóg Mantoulaye Dieng mooy jàngal suñu yaay développement ba ñun tey ñu roy ci ba ci jàng développement bu fas yéene cee jàngal suñuy sët kon nag loolu moo tax ñu jël journée bi déjjee ko Mantoulaye Dieng suñu deuxième marraine bi ci topp mooy soxna Seyda bu jigéen te moom moo ko liggéey ndax ku nekk xam na ne Sénégal yi amu fi fexe na ba jigéen ñi zone nord yi am nañu tissu dañ ko ciy gërëm di ko ci sant di ko wax ni moom jigéen xam na ni ñun jigéen la ñu mu jàppale ñu ñun jigéen ñi kon nag ñu ngi koy gërëm di ko sant ñu nag ay femmes de développement lañu dugaguñ ci politique bi defaguñu dara ñoo ngi toog di suñu développement ñoo ngi yore suñu groupement mais sëy Seyna bu njëgeen sant nañ ko nag bu baax a baax a baax di ko yëgal président de la république di ko yëgal euh, le sous-préfet de la zone nord parce que moom rek nekk fi responsable te ay responsable yu bari ñu ngi leen di woo mënuñoo fexe ba jot leen kon nag moom su fekkee ni dafa dégg affaire bi rek woo ñu daal di ñëw euh, daal di def loo xam ne lii plus de huit cent mille francs mu génne ko teg ko ci ay yére mottil ñu ko muy caution bi nga xam ne le ministre de la femme moo ko waroon joxe mu jël ko teg ko ne jigéen ñi Thiès Nord yi fas yéene nañoo mën ndaxte ku nekk xam na ni jigéen dafa gaaw a frustré wu. su fekkee ni kii am na mbubb kii amul mbubb rek du ñu doo leen mën a wax lu ñu gëm loolu mënoon naa yàq suñu quinzaine mais soxna sëy na bu njëgeen defar na quinzaine bi te xaaru ci dara parce que xam na ni ñun ñi nga xam ne ñun ñooy def femme de ay femme de développement lañu mënoon na nit ñi politique ñu dañuy def développement mais développement nag am na lu mu mën a jur ëllëg kon nag sëy na bu njëgeen ñu ngi koy sant di ko gërëm maa ngi leen di gërëm di leen sant di jox kàddu nag cellule nga xam ni ñoo yore ñoo porté woon jël communication ñu ànd ci soxna Ndeye Aliou Sall ànd ceeg Suzuka ànd ceeg Fat Diawara bu coonaax onsu bilaay mi ne seytaan rajim bisimilah rahmaan rahim jërëjëf faatu sa wax rafet na Fatou li mu wax ci quinzaine bi dañ ciy dolliwaat rek parce que wax nga lépp quinzaine de la femme bi li ñu wax liñ ci wax rek ndax quinzaine de la femme ba nga ko gëjee def yàgg na ñu koy def ñun waa zone nord di koy dagale ci kër Modou Ndiaye ba ci Polytechnique yëpp ci zone nord la quartier yëpp ci zone nord la di ñaan yàlla yàlla mi nga xam ni moo yor kàttan ak wér yàlla nañ ci yóbbu ci kàttanam ak mën-mënam di woo ñëpp woo nañu képp benn bépp femme développement bu nekk fii ci zone nord woo nañu lépp am na xàjj am na seen te képp kuy ñëw ku ne booy ñëw na nga sol mbub mu weex ñëpp na la sol mbub mu weex ñëw su suñu ñëwee dañee brotier na nga fay ñëw le 17 muy fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ci lañ koy def si ngoon kuy ñëw na ñëw 3 heures boo nga ñëw nga déglu li ñuy wax parce que dafa am loo xam lu am importance li ñu ciy wax mooy dem thème bi te thème bi dafa nekk loo xam li may wax rek moo ci nekk ndax thème bi dafa nekk loo xam ne nii thème bu am la ndax bu njëkk ba daan def quinzaine di bàyyi di fecc di ko folklore di def lu nekk tey nag suñu ministre bi def loo xam ne nii ñu dañ cee kontaan ñu jigéen ñi parce que li mu def mooy jël thème boo xam ne thème bu am solo nga xam dafa baax si jigéen ñi muy baykat yi di sàmmkat yi di pêcheurs yi di ñëpp kon nag loolu dama wax jigéenu zone noonu yëpp nañu ñëw déglu thème bi suñu ñëwee dañ leen koy tegal benn par benn ba nu xam lan mooy njariñu quinzaine maanaam quinzaine de la bi woor nañu ñëpp bàyyiwu bàyyiwuñu kenn woor nañu gépp groupement boo xam ne nii ña jaay gerteeg ñay jaay màngook ñëpp rawatina waa kër Modou Ndiaye rawatina rawatina waa Conaax. rawatina village de Tassé yëpp ñu leen di woo. auzu billaahi mina seytaani rajiim maa ngi nuyu ñëpp ñu fi toog Ndeye da wax ji rafet na présidente wax ji rafet na suñu nee femme de développement les femmes dignes les femmes braves développement rek moo leen ñor rawatina ñu indi benn thème muy le levier essentiel pour l'autonomisation de la femme suñ ko waxee bàyyi ñu les pêcheurs bàyyi ñu agriculture ñu les produits halieutiques képp ku koy def nga nekk maire ba kayaar képp ku koy def woo nañ la thème bi nag ñu jël ko porté ko muy comité consultatif développé bu jël thème bi porté ko ñu ngi ñaan képp kuy jigéen te développement ñor la ñu ngi la ciy woo thème bi daf ñu ñor am na ay sous-thème am na ay panel lépp a ngi ci biir ñuy atelier folklore bi ci boppam li daay la bàyyi nañ ko am na ay atelier am na ay sous-thèmes lépp ñu ngi ci ji waxtaan ci wasalaam loolu laa amoon lu may wax. bisimilahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñëpp ñu fi toog teew di gërëm sama ñett ñetti naataango yi nga xam ne ñoo njëkk a jël kàddu li nu wax rafet na mënuñu cee dolli dara wante nag njàmbaas yàqul sër di wax nag ñu ngi woo soññ jigéenu zone nord yépp bàyyiwuñu kenn quartier yi fi nekk yépp ñu ngi leen di woo bu boobaa bu leen kenn jiitu ca complexe danielle Brochet ba à 15 heures ñu ngi soññ jigéen yépp nañu ñëw ñu ñëw déglu xam lu ñuy wax lan la bu ñu paree ca quinzaine ba ñu mën a xam lan la ñuy fu ñu jëm ñu ngi woo soññ ñépp thème bi ku ne xam na ko danoo bëgg président dafa bëgg PSE jigéen yi approprier ko ndax PSE bi kenn xamul lan moo ca nekk mais bu boobaa dinañu dégg PSE bi dinañ ko tojal nit ñi jigéen ñi xam PSE bi lan la ñu ne lan levier essentiel de l'autonomisation de la femme ku ne xam na que jigéen ñi ñoo yor kër yi te lu ñu def ca kër ga ca njaboot ga la jëm kon nag na jigéen yépp ñëw bu kenn manqué wasalaam. asalaamaaleykum mbooloo mi kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di compléter rek. ndax l'essentiel bi defe naa ñi jëkk a wax nañ ko di ñaax suñu moroomi jigéen ñi rek ñu teel a ñëw ndaxte di ñun rek ñooy organiser trois communes d'arrondissement yépp ñooy organiser te ñun ñoo jëkk ubbi ku jëkk a ubbi nag war war ngaa wane une bon exemple exemple boo xam ni dana teel dana weex te dina am réussite loolu lañ ci bëgg ba lépp luñ fay waxtaane ku ca jóge gis ci sa bopp gis ci njariñ loolu la ñuy ñaax suñu morom yi jigéen yépp di invité nag suñu yeneen moroom yi yu nekk si yeneen commune d'arrondissement yi di invité waa ouest du invité waa est bu ñu ñëwalee bu ñu organiser ñu demal leen lu kenn man ñaar moo ko ko dàq te Cees ñoo ko bokk gërëm nag suñu responsable yi wax dëgg yàlla seetaanaguñu ndax li ñu jot a gis neex na liñu ñu wax jox wax ñuko mën mun nañ ci japp en attendant ñu ngi leen di remercier bu baax bëgg nak ñu gën ñoo jappalé waat lu mu gën lu ñu a dool rek muy gëna a baax ndax dañ ni jigéen ñi dañoo wara autonome te jigéen ñi fi nek kenn ku nek yaa sa ruq di kortu kortu ku ñu li ñu jël ma ngi leen di sante di leen gërëm bismillahirrahmanirrahim rahmani billahi mina rajim la xawla la xawata illa billah jërëjëfee sëñ touba jaara maman maa ngi sant sama nattangoo jigen yi nga xamni tok ñep ñëpp daanaka wax waxat li Fat Badiane wax ñi sama nattangoo yi wax ñu si jaarat nam kay xana soñé soñé bi modi di soñé li tambalé polytechnique ba kër Issa bàyyiwuñu bépp jigéen boo xamante ni yaa ngi yëngatu développement rek bàyyiwuñu la ginaaw ya nga ci bir ta xamni mbir mi sa mbir la ndax ñun jigen amuñu lu développement yaakaaru nu lu développement gëm nu lu développement ak fonk suñu bop ndax fonk sa bop motax mën ta passé ñu tak suñu digg takkatoo nek wenn say di liggéey di boole suñu ak suñu dakar te yalla tax mo waral and bi tay ndax and bi and bi yag la ndax bu fekkoon du and bi yag kon li tay duñ ko man wante and bi yag la bu sincère bu deug ndax ba jaan mi lim wax rek lolo fi nek te lim wax du ci delu wat may wax ni ñi nga wo jigen ko mbollem ko xamantene rek yaa ngi yor groupement di liggey si développement ñi ngi lay wo de la tàllal suñu loxo la tambalé coonaax la tambalé euh, jasab la tambalé pognal la la tambalé ko sarafal la tambalé minna la tambalé ngent la tambalé ñépp rek ñi ngi leen di wo ëmb na ni ñépp bàyyiwunu kenn ginnaaw wa ko cheikh bàyyiwunu kenn lima ci si nak modi na bu faaw ñu sant ko ndax lutax ndax nabu dafa nek ko xamanteni ñu doono takato di bëgg lenn lenn lolé man lama sa daj xamna ko la sa morom daj xamna ko wante yaakaar naa tey ba demee ba bëgg di mon sipé ni mu sippee na lan ba ñepp togué dëkk bi tar lol kenn amul mbubb yalla ak mom motax ñu am kon tay ji bu togo jakkal ak radio bi faaw ñu sant ko gërëm ko ta diko wax ni ko tit bu mu ngi ni tok ci walu développement si la ni yëngutu demagul nak si politique bis bu politique jotee ñu wara a jàkkalu askan wi politique dina wax ak ñoom ba mu jeex dina wax ak moom ba mu neex waaye nag si développement loon toll kon nan waxagun si li muy problème quinzaine bi di woo jigéen ñëpp ne kenn ku nekk mobiliser la nga yor ak la nga man ak la nga mënut ndax zone nord kat kenn mës sa dem tool yës sa rawatina zone nord kenn ku lu waay du sumb rek sonno nga koy sumbe te yaakaar naa ne moom fu nu fu nu kon nag maa ngi gërëm di sant su doli sun tubaab seebra di waxaat ñi ngi gërëm nabu di gërëm sunu sous préfet ku japp la japp mom neex lol bu ñu ñolé nak mu neex kon mom la kon faaw ñu gërëm ko diko sant ci kat na yalla yonte bi dolé señ taba mam serigne fall jere jox ma jox ay dembe kaddu gi bismillahir rahmanir rahim asbillahi minash shaitanir rajim barke serigne touba ak cheikh ibra barke serigne cheikh fall bayib gor suñu li ñu semb yalla nañu ci yalla defal ndam muy 15e de la femme bi nga xam dañ ko namon namon nañ ko yalla andil ñuko ñuy sante autorité yi ko waat teg ko ci suñu loxo ñuy sant Fat Badiane mi ñuko andal diko di liggéey waye ñuy sant préfet mi nga xamni ne jéego bi ñu njëkk def ci mom lañ ko njëkkee mu léralal ñu li ñu naan buñ la soxé mu neex mom ngay wé mu léralal ñu fi ñuy jaar centre ba def préfet ko njëkk lijeenti lijjanti bi ñu jógee ci loolu nabu njegeen dégg ngeen li ñëpp wax kon ci sori mom ñi ngi koy wax ni moom moom son nor comme mo fi dëkk doon jigen di suñu natt ngoo njëkk a ñu gis nañ lim ñu defal ñu wëlbatiku nak di wo quartier yépp bi ñé duggé ci village détaché yi ñun ñuy dugg ci quartier yi ci biir wo nañu kër cheikh ibrahima fall wo madina fall wo kawsara sara ngent wo këri kaw wo quartier yi ñu wër yépp jaxaw kaw jaxaw suuf di wo jaxaw kanda ñépp wo nañ leen dañu ni kuy ñëw solal lu wéx ñu andando maase ndax ñun ñépp benn bop lañu kenn mënu ko xar ñaar ca ñu ni ñu daje fa ak yar ndax ñun ñi nga xam ni kat dañoo tàmmoon sàmba Mbayaan dañu noo yar nee na nu tey sabar du fa am tama du fa am kenn du wax lenn thème bi la ñu bëgg mu dugg ci bopp jigéen ñi thème bi nag li ko indi mooy liggéey rek ndax ñun kat danoo nekkoon ci sunuy kër sax nag di jéem a dugg dugg lu ci thème bi ca xamuñu thème bi jigéen ju ne wut nga poulailler bu ndaw jigéen ju ne yaa ngi wal cere tay ak yaa ngi saaf gerte jaay ñii ngay seef café jaay ak a xent kon su ñu andilee thème bu demee noonu ci yarum ginaar yeeg yarum xar yeeg nag yeeg laneen ak laneen dañ koy sante yàlla yàlla na ko yàlla yeggale yàlla bu ci suñu yaakaar tas ñi ñu koy defalit yàlla bu seen yaakaar tas yàlla nañ ci yàlla defal ndam ñuy nuyu suñu président di ko sant bu baax nag muy Macky Sall aleykum mbeɗa salmina on onon bandiraɓe haal pulare jinnomi haalde koye pular puujimi patuma e jolfe mbeɗa salmina secrétaire général men hono fatou badiane kanko ganduɗa kanko dari darde nde guila e fuɗɗare haw noddi yimɓeɓe o fonno nodude foof ha mbawi rentude ɗo hande en jetti allah noon en jettimo en jetti rewɓe e caggal makko en jetti sous préfet puɗɗuɗo uddiɗɗo lawol ngol adi wadde ballal eɗen jetta seynabou jegan baɗɗo ha kala mo wawano dañde wutta wawi hen dañde wutte eɗen nodda bandiraɓe men foof ganden kala gummiɗo pour ligguey fate fatude rewɓe yo andu 15 an de la femme fuɗɗitima joɗima duuɓi jeeɗiɗi innaka dakhte waɗatano hen tan ko fijirde ƴeewama fijirde ala nafoore kala debbo gonɗo e nder zone nord ene woni ligguey ko quartier ji ɗi foof mbimi village rattache ji ɗi foof mbimi goto hen foof ene dilla tene dañi to dillata en priorité nan karisa kala biɗo liggey ko kamɓe so jeygu manggo yonti ko kamɓe so yeyde nana yonti ko kamɓe élevage guertoɗe baali beyi foof ko kar isa kon boog emin nodda foof min goppani hay goto kala ko debbo jagganno yo ɓeydu kala ko debbo dillanno yo ɓeydu allah woni pewnowo jaññowo yo allah yañan en en puɗɗorima bisimillahi rahmani rahim eɗen jaagui allah yo sulan en kunuɗe yitere yañnana en fewnana en ha ndewen ɗo kala debbo roya e men ƴeewa e men ya barke allah enula ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu assalamu aleykum ana min minnattumit boubacrin ma ayatayalkum honati ليوملقى كبير أنفات بجان هناتي نختاركم توم البضان والعليات كامل هناتي من عند جخاول كبيرة منات نجايو منات ماجت منات منافال ومنات لسون لسون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 ñoo ngi sant yàlla du julli ci Seydina Mohamed mi ñu may ñun ñëpp ñu daje fii tey di lijjanti ak a toppatoo sunu journée de la femme bi. kon nag ñoo ngi woo mboolem ceeskaay ku fi dëkk ñoo ngi lay woo rawatina nag su zone nord bi nga xam ne ñun ñoo aye te njëkk aye te ku njëkk aye nag dangaa war a wane loo xamee ni say moroom toppee doo am dara looy xabat ñun jigéen ñi nag takk nañ suñu ndigg ànd ak Adja Faat di xam ni bis bi suñu bis la nit nag suñ ko joxee li mu war a def te moom ko te ñun jigéen ñu moom suñu bis te war a defar ba mu baax nañ def ba mu baax te àndandoo muy jigéen ñi képp koo xamee ne dégg nga sa tur ak déggoo ko zone bii zone noor nañ takku te ànd te takkatoo nii ñu def ba journée bi egsi ci suñuy loxo nañ ko matale te xam naa ne loolu la ñuy matale te loolu la ñuy liggéey parce que fii ay liggéeykat rek fi ne ba préfet Mamadou Sy nag ñun ñoo ngi koy sant rawatina man Ndeye sa mbay mi maa ngi koy sant man maa nekk ci commission bi joxe jiw bi fii ci zone nord maa ngi ñaan nag bépp sama nawle jigéen boo xam ne nii bëgg ngaa bay mbaa nga jublu ci mbay te loolu rek mooy jàllale réew nan toppatoo mbay mi te jël jiw bi tëj ji te toppatoo liggéey bi wasalaam. ñi fi jël kàddu ñëpp ak ñi jëlul kàddu ñoo ngi lay ñoo ngi di gërëm sant seen rafet na comme ni ngeen ko defee rek di feddaliwaat oote bi. li ko dalee kër Modou Ndiaye ba euh, école polytechnique ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo di woo seen i jigéen di woo seen délégué de quartier yi ñu ñëw jàppale ñu ci bis bi sagal ñu ci bis bi rafetal bis bi. ndax bis bi comme ni ñu ko waxee woon rek ñun jigéenu Thiès Nord ci la ñuy càmbar suñu jafe-jafe yëpp génn suñuy bëgg-bëgg yëpp jébbal ko ki nga xam ne mooy suñu su préfet représenté fi état bi ñu jox ko ko pour mu jotuñu ko suñu président de te yaakaar naa ne bu jé bu déggee jooju femme de développement yu zone nord

parce que suñu Thiès Nord gi dañoo fas yéene mu développé mm-hmm. wax nañu président la financement yi ñun bëgg nañ ci bëgg nañ ci suuf si dinañu eggale loolu yëpp loolu daal moo waraloon suñu ndaje bi tey di leen gërëm di leen sant di leen xam ne tamit quartier bu nekk waxoon nañ ko mu tànn benn femme boo xam ne icône la fa ñun jigéen ñi Thiès Nord fas yéene ñoo sargal suñu jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci Thiès Nord gi di def développement ndaxte looloo taxoon ñu tànn Mantoula Diène pour thème bi kon Thiès loolu sañu ñoo def benn journée te tuddewuñ ko kenn ku dul Mantoulaye Diène ba ñu paree ci Mantoulaye Diène ñu teg ci soxna na bu Ndiéguène ndax na bu Ndiéguène moo fi nekkal état nekkal ko fii ci Thiès Nord kon nag ñun ñi ñëpp jigéen Thiès noor war nañoo takku taxaw xam ne soxna na bu Ndiéguène seetaanu jigéen ñi Thiès Nord yi ba ñu ca jógee tamit ñu teg ci docteur Pape Amadou Ndiaye ndaxte moom tamit mu ngi sonn mi ngi nekk ci développement bi di ci yëngu di teg ay accès di ko tegal jigéen ñi kooku tamit ñun képp koo xam ne yaa ngi yëngu di dooleel jigéen dinañ la wala yëf yi day boole nañ ca ku ñuy wax soxna Fatmata Aw ca Grand Stand bi parce que moom tamit sama nattangoo la woon wi ànd di liggéey ci développement ma gis mu baax mu ngi def développement teg nañ ci tamit koo xam ne ñu ko tudd muy sëñ Omar Badiane ndaxte moom it day yëngu ci développement di former jigéen ñi di leen tegal ay entreprise développement lañu def képp koo xam ne mu ngi yëngu ci développement kama lima kama mu nekk ci Thiès Nord bi di jàppale jigéen ñi laa liste n'est encore exhaustif dinañ la boole ci parrain yi nga jàppale ñu ci bis bi te bu paree lii day am suivi yamale wuñ ko fi tey